asalaamaaleykum mbokki euh, internet yi asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen safoo di ñu suivre euh, rawatina aussi euh, di rafetlu invitation bi nga xamante ni invité nañ ma ko fii si Khass TV ngir rek ñu jëm waxtaan ci li nga xamante ni moom la président de la république fas yéene waxtaan ak askan wi comme nu ñu ko baaxoo def chaque 31 décembre ci ngoon ak le 3 avril aussi ci ngoon mooy ñaari bés yi nga xamante ni kii di président de la république dafay faral di waxtaan ak askan wi. askan wi nag bari ci ay xaar ay ay ay xaar yoo xamante dañuy xaar ci discours président tey mu ñëw ci ñu jàpp ni nag président euh, buy tàmbale euh, dina euh, yënde ay jàll parce que umpale ni 2020 bii tey jii am nañu kilifa yu bari yoo xamante ne bàyyeeku nañ fi am na ay mbir yu bari tamit yoo xam ne xew nañ fi rawatina feebar bi nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi nga xamante ne ay bakkan yoo xamante ne jël na ko fi ak nu mu nga xamante ne ndërmale na ko suñu économie suñu koom réew donc du ñàkk président tamit ñëw ci loolu. jéem tamit ñëw wax yan yoon la war a war a mën a jaar ba suqali économique bi parce que tamit bu ñu nee économique jamono jii gis ngeen vingt vingt cinq décembre bu daan jot décembre artistes yi jouetuñu jamono jii dañ daan génnee CD yi jamono yi euh, tournée euh, musicale yi ñu daan def amatuñu ko boo ñëwee tey si ñu daan nekk si hôtel yi tamit ñu si bëri euh, seen liggéey taxaw na borom hôtel yi aussi tëj nañu aéroport ñu fa daan tamit daan liggéey daan daan seen doole tey vol yi bu nekk Euh, cent vol la ñu am par jour te boo xoolee vol yi matuñu sax dix donc loolu tamit dafay nërmeel koom-koomu réew donc mu nekk ay ay ay ay ay matuwaay yoo xamante ni askan ñu ngi xaar ah, kii di njiitu réew lan la fas yéenee dampee ñu ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci secteur yooyu ndax ginnaaw ba première vague bi nga xamante ne moom la ñu waxoon ah, président daf ci indi woon ay ay saafara mu ne tey ah, dañuy dajal lu toll ci mille milliards pour rek jéem a subventionné euh, partie euh, yenn secteurs yi nga xamante ni jàpp nañ ni corona bi laal na leen ñu ci mel ni artistes yi lu ci mel ni sax presse yi bokkoon na ci lu ci mel ni si euh, secteur hôtelier bi ak ñu euh, ñu ci ak euh, ñu ñëpp daal daanaka bokkoon nañ ci donc ñu ngi xaar président wax fan la toll ci décision yooyu ak ndax ñu war a jot aussi seen alal ndax jot nañu ko ci loolu sax ci la président kii di Macky président Macky Sall génnew lu toll ci 65 milliards yoo xamante ni dañ dañ koy jagle dund ngir rek jàppale famille yi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw loolu tamit ñu ngi xaar président tey mu ñëw si indi si ay leer ana ndimbal loolu fu mu toll parce que euh, kii di Mansour Faye lañ ko ko joxoon mu wax ñu fu mu ci toll est-ce que ñu ci war a jot jot nañ si est-ce que askan wi gis nañ seen bopp tamit ci fonds Covid boobu ñi nga xamante ni moom lañu waxoon. ci loolu tamit dinañ xaar euh, président ñëw wax ñu ci yenn pexe tamit la fas ne gere lii di deuxième vague bi parce que tamit bu ñuy xool euh, corona bi mi ngi def liggéeyam mu ngi kon di di rey ay ay ay bakkan. tey ji nga xamante ni moom la ñuy wax yee lu toll ci huit décès am nañu ko fii ci euh, Sénégal mu nekk nag loo xam ne aussi nit ñi dañ cee dañ ko ciy xaar ndax dafay annoncé ni bu ñu demee ba ba mois de janvier le jàpp le 10 jàpp le 15 ndax dafa fas yéene jëlaat mesures yi nga xamante ne jëloon nañ ko depuis temps yi nga xamante ni moom mooy euh, première vague ba parce que jamono ji gis nañ ni deuxième vague bi lu mu commencé di rey amuñu ko woon ci première vague ba ndax dañuy jàpp ni président dafay delluwaat bu ci boy boy ba delloowaat nit ñi parce que euh, jamono ji ñoo ngi ci euh, tey jii rek am nañ plus de cent cent quatre vingt quinze euh, résultat positif donc mu nekk loo xam ne aussi lu lu lu waar la lu ñu ne mosuñu fa am waaye tamit ñu ko am bariwul donc ndax président dafay annoncé tey nii askan wi du yàgg dara dina dinañu delluwaat ci kër yi bu ñu delluwaat ci kër yi mooy def benn couvre fa nit ñuy war a toog. ñu ay interdire euh, rassemblement yi mais tamit loolu euh, pour ñu def ko day fekk mu nekk état boo xamante ne am nañu fulla si lu ñuy liggéey parce que tamit bu ñu gisee ay ay nit ay kilifa sax di dànkaafu état loolu ñu war a ñu war a mën a poser la question que ni y a problème au Sénégal parce que état nit kenn war a ko mën a défier donc rek léegi ndax état dafay euh, da dafay serrer la pression loolu je pense que di tey discours président bu tey bi ci lañ ciy xam dara ndax dañuy interdire rassemblement yi parce que tamit jot na euh, corona bi euh, lu mu fi commencé di yàq fi mu nekk nii wax dëgg yàlla euh, mi ngi jéggi dayoo donc ñi ngi xaar ci président tey mu indiwaat yeneen mesures yoo xamante ne pour gën a mën a durcir yi nga xamante ni moom moo fi nekk ba jamono jii parce que ñi ngi wax ay waxu rassemblement yooyu yëpp ana amaana tey président dina ko dakkal ñu jàpp ñu yor tamit ah, tukki tamit yi nga xam daan nañ ko def ci biir réew mi di wasaare virus bi partout au Sénégal loolu du ñàkk ci président jël si ay mesures donc bokk na si loo xamante ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ciy xaar ah, bu ñëwee tamit ci wàllu euh, li nga xamante ni moom mooy dialogue politique bi boo ngeen fàttali ko dialogue politique bi euh, ci première vague ba moom moo waraloon kii di président recevoir kii di Ousmane Sonko recevoir tamit kii di Khalifa Sall Ahmed xalifa ñes ak euh, ay kilifa diine ñoom ñoom sëñ Modou Kara Idriss Seck ci loolu moo waraloon loolu depuis ba mu leen recevoir rek léegi nag yan enseignement la ci sénégalais yi lenn la sénégalais gis mooy Idriss Seck ñëw na rejoindre ko Malick Gakou mi ngi si tànk ñëw donc loolu moom sénégalais teg na ci bët te gëm loolu nañu ne dialogue wee tax te ñoom bu ñu euh, sukkandikoo seen i kàddu nee nañ ba ñu dalee waxtaan ëppal nañu 15 mois ci ay discussion donc ndax dialogue boobu dañ ko créé woon ngir dóor askan wi wa illaa dafa nekk loo xam dafa dëgg woon si ñoom parce que bu ñuy fàttali ko président benn yoon boobu rek la ñu leen euh, déglu Euh, ba ba ni fi dem si yàlla ki nga xamante ne moom mooy euh, général moom du Niang nga xam moom moo jiitoon commission boobu euh, dem wuyu ñu suñu borom lan mooy ëllëgu dialogue politique bi du ñàkk président tey mu ñëw si indi ci aussi ay leeral jéem a orienté waat nit ñi xool yan yan plan la ñu war a war a mën a jël ci wàllum politique ngir mën a jéem a réew mi parce que boobu ba tey ñi ngi xaar ay élections yoo xamante ay élections locales la ba tey gis ñu si ay date boo xamante ne. date bu précise la bu askan wi war a mën a teg loxo ngir ñi nga xamante dañuy nekk ay candidat mën a dem waajal seen bopp loolu ba tey euh, gisaguñu ko fi donc nag euh, ñi ngi xaar président ñëw ñu wax ñu kañ la élection locale yi euh, loolu tamit bokk na si lu ñuy xaar ñëw tamit ci li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yu am si jaspora bi bu ñu nee jaspora xel yi dem ci sénégalais de l'extérieur yi ump leen ni Covid bi tey bokk na si ñoom nga xamante ne ñu ñu si gën a sonn ci la ñu bokk ñu si bari daanaka. jaay lañ daan def te jaay bi euh, mënuñu see génn ndaxte lu ñuy waxee yu bari la secteur yu bëri dañoo arrêté seen activité donc ñooñu aussi ñi ngi xaar euh, force Covid bu bu diaspora bu nga xam moom lañ taxawaloon ñu fexe ba jox ko ñi nga xamante ni ñoom la ñoom ñoo ko yelool euh, ñi ngi xaar nag président jëm si dànkaafu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon gérer muy ambassade ambassadeurs yi wala yenn ci ay consul donc ñu ngi ci xaar président lan la war a war a mën a teg ci loxo diaspora bi ba gars yi seen euh, loxo euh, seen xel euh, daal di daal di dal dañuy ñëwaat tamit ci biir réew mi wax ci wàllum média yi gis nañ ni président fan yëpp gis ngeen coow li nga xamante ne am na ci ARTP ak yenn ci ay këru média yu ci mel ni D média yu ci mel ni Walfadjri Walf TV yu ci mel ni GFM yu ci mel ni Safir FM ak yeneen yoo xamante ne tey jii ñi ñu jàpp nañ ni dañ leen di xoqatal donc loolu aussi euh, askan wi euh, jot na président ñëw euh, arbitré si jafe-jafe yooyu am ci diggante ARTP ak yenn ci ay médias loolu tamit ñu ngi ko ci xaar ak loo xamante ni tout le temps dafay faral di ñëw muy muy code de la presse code de la presse bi président war nañoo war a mën a wax kañ la ko fas yéenee voté parce que bu ñuy fàttali ba mu toogee ba tey ñu ngi wax problème code de la presse Abdoulaye Wade wax na ko fii ba dem voté wuñu ko. Macky Sall ba mu toogee ba tey mi ngi koy wax chaque discours à la nation moo boobu dafay ñëw donc askan wi tamit ñi ngi xaar nga wax ndax pare nga pour euh, code de la presse bi ñuy wax euh, ñu voté ko ndax pare ngeen ci wala pare wu leen si loolu tamit ay li mbir yoo xamante ne askan wi ñu ngi ci xaar emploi des jeunes loolu dafa nekk loo xamante aussi ba ñu dalee suivre euh, discours du président de la république ba tey dafa nekk benn cas boo xam ne tout le temps dafay revenir mu mel nag loolu moom problème la ci nguur gu mën a toog ci Sénégal. Euh, emploi des jeunes tey gis ngeen ko wax naa ko bërki démb ñaa naa leen tey jeunes yi nga xamante ni jàppuñu si dara ñi ngi euh, wut seen di ay scooter di jéem lu ñu liggéey ngir mën cee génn donte sax am na ñoo xamante ne ñekk si biir secteur boobu di def naka sul noonu man ñu taxu ma may wax parce que euh, du rek benn pomme bu nëpp moo war a mën a yàq saako ñu xool les jeunes yi nga xamante ni ñu ci bari am nañ seen master am nañ seen jàng nañu ba pare amuñ suñu jàpp wut ay scooter di ci liggéey di daan seen doole Euh, Carrefour bu ñu dem lu ci mel ni Castor lu ci mel ni pompier ak feneen ak feneen policier dogaale leen arrêté leen jël seen xaalis euh, fayloo leen 6 000 francs 7 5 000 francs loolu lépp pour man euh, dafay ndërmeel emploi des jeunes parce que tamit ay jeunes bu ñu amee fulla di wut si lu ñuy jàpp ngir bañee dem defi lu bon la ngir bañee dem jëli gaal tukki ci la ngir war a mën a suturaal seen njaboot jàppale leen faj seen i soxla parce que am soxla làmb ko làmb sa poche daj ko faj ko ci saas bi loolu lu am solo la donc ñu ngi xaar président mu accompagner les ces jeunes là bu fekkee sax war nañ leen war a mën a wutal ay scooter di leen ko financé ñuy fay par fin mois ñu ciy liggéey loolu pour man sax xalaat la mais na nga trouver ay solution pour emploi des jeunes parce que tamit ndaw yi ñoom ñooy yaakaar réew mi ëllëg seen yaakaar gu tas moo waral ñuy jël gaal di dem di wuti xool lu xew bitim réew géej gi nga xamante jël ngeen ko jox ko chinois yi licence de pêche yi ba léegi kenn xamul lu ci leer lu ci leerul askan wi tamit di xaar leen ci gindi dem nañ ba nappkat yi mënatuñoo sax jot si jën yi wala jot si seen géej pour napp si loolu tamit tax na lu tax ñu dem wuteeli mbëkk mi dem rek euh, ngir war a dem euh, Espagne wala France ngir wuti euh, daani seen doole donc ñi xaar président mu indi ay solution si situation boobu nga xamante ni ñu ngi koy dund ci wàllum ci wàllum ndaw yi ak tamit ci wàllum baykat yi coow li bari na ren diggante Sonacos chinois yi ak baykat yi président yow yaa war a mën a atte yow yaa war a mën a wax li nga xamante ni moom mooy euh, xalaat bi nga xamante ni bu ñu ko war a ko mën a teg ku nekk gis sa bopp parce que tamit euh, sonakos ay doomu Sénégal ñoo fay liggéey Sonacos suñu yëf la baykat yi dañ leen war a taxaw jaayee leen gerte gi njëkk bi nga xamante ni war nañ see war nañ see war a mën a yëg seen bopp parce que baykat dafa nekk euh, métier boo xamante ni nit ki war na see war a mën a tedd mais Sénégal ngay gis baykat boo xam ne amul droit du am kër du dawal ci oto yi rafet yi du takk si jigéen ñi rafet yi donc loolu dafa nekk euh, problème il faut que ñu accompagner baykat yi parce que ñoom ñoo tax ñuy dund ñun ñu ngi réew tax gisuñu fi tool gisuñu fi daal ñoom ñu nekk ci àll ba ñoom ñu nekk ci naaj ba te nag nee na nit euh, nit ki bu lekkee ba regg war naa gërëm ku nekkoon ci waañ ba donc loolu Youssou Ndour wéy na ko donc ñu ngi xaar euh, nga teg ay matuwaay yoo xamante ne baykat yi dinañ ci gis seen bopp dinañ ko war a mën a jaayee prix boo xamante ne dinañ ci mën a dund te duñu gaañu kenn du ci gaañu donc loolu ñu ngi koy xaar ci ay solution lan nga fas yéene teg si campagne arachidière bi nga xamante ni euh, moom boobu ba tey mi ngi indi coow leneen loo xam ne aussi euh, indi na mooy euh, wàllum culture culture dafa nekk loo gis nañ sax dem nee nañ statut artistique bi gars yi voté ko à l'Assemblée nationale loolu ñu koy rafetlu lu baax a baax mais ñi ngi xaar tamit code de la presse comme ni ma ko waxee sànq mais tey ci wàllum culture naka lañ war a mën a assister ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci lu ñu mel loolu dafa xaw a yaatu parce que léegi Sénégal dafa nekk docteur secteur boo xam ne kenn assaniru ko léegi euh, ku jóg da ngay way ku jóg euh, nekk euh, journaliste ku jóg def benn si nga lekk nekk nga wéykat bokk nga ci artistes yi donc pour loolu nag il faut ñu jéem a assainir ce la pour ñu war leen war a mën a xool naka lañu war a mën a jàppale ñi nga xam ñoom ñoo ci yëngu ku nekk lu si sa cër ñu jox la ko te yaakaar naa ne nekk na ay points yoo xamante ne ñu ngi ci xaar kii di njiitu réew mi mu indi si ay ay ay ay solution ñu ngi rafetlu tamit auto euh, autopont yi nga xamante ne aussi gis nañ ko muy euh, yenn si ay travaux yoo xamante ne gis nañ ko ci VDN bi gis nañ ko ci Yoff yooyu aussi euh, ñu koy rafetlu du ñàkk aussi booy xaw a dressé sa bilan du ñàkk nga ñëw ci yooyu parce que tamit xaw naa réglé un peu rek ci problème embouteillage yi parce que embouteillage gis ngeen nu mu mën a yàqalee comme comme réew na réew mi nga xam dafa mel ni Sénégal muy jug mënatul sax taxaw embouteillage yi teeku tënk ko donc loolu autopont yi je pense que ni solution la donc bu ñu ci mënee am euh, fële ca croisement Cambérène ak ñi ngi xaar si yan mesure nga ci war a mën a jël ak yan ñooy euh, projet yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw en 2021 ngir autopont yi gën a bari ci Sénégal embouteillage yi gën a wàññeeku xam naa tamit du ñàkk di nga ñëw ci avancement euh, BRT bi gis nañu ko am na ci dëgg-dëgg la ay kër yu bari yoo xamante ne ay place yu bari yoo xamante ne daanu na mais dégguñu tamit seen borom ñaxtu donc loolu dañuy rafet njortu rek ni kenn ku si nekk si ñoom li nga war a jot si ndàmpaay euh, jot nga ko moo waral euh, coow coow li bariwul mais lu ñu war a mën a gën a gaawal liggéey bi tamit euh, ñu jël terre bi xam naa du ñàkk di ñu joxaat beneen date nañu si 2021 bi peut-être avant avril du ñàkk ngeen wax ñu ko mais lu ci mën a am rek mooy sénégalais yi jamono ji moom lu ñu leen lu ñu lekk ak lu ñu naan moom lañu gën a tal ndax terre bi bu doon marque ceeb la wala marque suukar wala marque diwlin moom sénégalais yi dinañ ci kontaan lool mais boobu ba léegi aussi jël suñuy milliards centaine de milliards ah dugal ko si benn euh, train express régional boo xamante ne boobu ba tey askan mi ngi xaar gisaguñu ko euh, ñett si say ministre ku nekk wax na joxe na dat ba ñu déggee yeggee si dat boobu ah gisuñu sax dara lu tàkk donc te boobu ba léegi am na directeur général boo xam ne nommé nañ ko buy euh, muy xaw ma Abdou Karim Sall su ma jumale ngir rek mu jéem a gérer terre bi donc boobu ba bañ ko nommé par ba tey mi ngi fayeeku salaire am te gisul dara loo xam ne liggéey ko fi donc loolu mu nekk problème boo xam ne aussi euh, il faut que askan wi nga indi leen si ay gind wax ñu TER bi kañ la war a war a mën a daw loolu ñu ngi ko ciy xaar ci wàllum éducation du ñu wax te jeex lu ñu ko euh, gis nañ ni enseignants yi euh, fan yëpp ñu ngi kaas di wax ci wàllum éducation sexuelle et genre bi nga xamante war nañ ko dugal si suñu système éducatif bi boobu ñu ngi ciy xaar lan nga ci war a mën a wax parce que ministre bi mal Mourou Talla génn def sorti sax mais mu mel ni sorte bi am na ñoo xamante ne yeeyu leen ñu ci mel ni Imam Kanté gis nañ ko mu def benn sortie boo xamante ne moom daanaka sortie premier ministre bi yeyu ko donc yow yaa war a mën a génn ngir wax tey euh, tey si ngoon nga wax ak askanu Sénégal wax wax jooju fu mu jógee ak yan anam lañ ko fas yéenee defee bu dee am na wala yow daal yow yaa war a mën a gindi askan bi te loolu euh, bokk na ci euh, mesures yi nga xam ñu ngi koy xaar nga wax parce que yow sa kaddu mën nañu wax ni moom mooy la voix officielle parce que ministre bi wax na mais malgré que wax na mais yow daal vraiment. comme ni nga ko waxee woon bala Obama seetsee ngir wàllum euh, góor jigéen sëy ak ànd góor a góor wala jigéen a jigéen ci mim réew ni nga euh, tranché woon débat bi ba kenn waxatu ci loolu tamit la ñuy xaartee si yow nga wax ko ci wàllum éducation euh, sexuelle bi ci wàllum éducation bi comme ça nga war ci mën a gindi askan wi nit ñi xam yooyu daal président mooy lu ñu njot ni tey di nga see ñëw wala tamit ñu ñu yoo xamante ne tey war nga see war a mën a addu donc tey ñi ngi xaar euh, di si profité tamit di ñaanal euh, ñëpp jàmm di leen ñaanal atum naataange ah, lépp loo xamante ni ay ñaaw ñaawteef la ay feebar musiba yi amoon ci 2020 yàlla na ci yem tey jii muy euh, deux mille 2020 yàlla na si yem 2021 da atum bànneex atum mbégte ah, atum xéwal ñi ñaanal ñëpp jàmm ñi nga xamante ni ñoo ñu jiitu rawatina ñi jàngoro bi yóbbu yàlla na leen yàlla defal jàmm yàlla na yàlla may yóbbu ci àjjana yi gën a kawe ñun ñu fi des yàlla yàlla yàggal seen sarax suñuy loxo yàlla musal ñu ci feebar bi ak euh, balaa bi nga xamante ne mooy mbas mi euh, yàlla na ko suñu borom saafara indi ci ay solution bu doon daf ñu doon euh, testé jàpp nañu jàpp nañu parce que lépp lu ñu yàlla doon aaye rek mbas mi ñëw na aaye ñu ko donc ñu war si mën a jàngatee ay ay ay tiir yu bari yoo xam ne vraiment bu ñu si jógee dinañu soppi defaraat sàpp yi dinañu soppi doxalin donc yàlla suñu borom euh, yàlla na yàlla wàccee yërmande ci réew mi wàccee ko ci àdduna bi yëpp di gërëm euh, waa Xaas TV bi nga xam ñoom invité euh, porté seen choix ci man ngir ñu mën a waxtaan ci li nga xamante ne njortu nañ ñi wala lu ñu war a mën a jàngatee lu président fas yéene wax tey di leen gërëm baax di leen sant di leen ñaanal jàmm jërë ngeen jëf